asalaamaaleykum maa ngi tudd baa ji nekk euh, coordonnateur Kër Tambédou Action. ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi tax ba ren ñu at ko encore te ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee koy at yu bëri donc kontante bu dëgg lan am kontante dëgg lan am kontante boobu daf ñu permettre tey au moins jóge bi Casamance ñoo fekkee euh, mawlud bi fii nii ci euh, Tiwaawoon donc nekk fii suñu sànc kër Cheikh Tidiane Tambidou euh, suñu mu xaddam alaaji moom moo xam ne moo ñuy jàngal lépp lépp lu ñu xam daa moo ñu ko jàngal moo ñu jàngal lépp nu ñuy def surtout si solidarité boo seetluwee euh, depuis dëmb ba tey ni ñaay wàcc ci kër gi kër gi fees na dell dañu koy sant yàlla bu baax a baax te jàpp ni incha allah ñaan yi ñu fiy def yëpp yal na ko yàlla nangu. xam nga ni ki euh, gàmmu day bëri ñit te naaj bi day tàng tey dëgg la naaj bi feeñul mais tàng na jër soo nit ñi ñuy ñaqee donc loolu la comprendre gis ni ki pèlerin yi ñëw fii dañ dee sonn dañ dee mar xiif ñenn ñi bëgg a oyoflu donc il s'est dit que il serait important mu teg fi benn camion boo xam ne frigo bu ànd ak frigo euh, bu ànd ak glace bu ko defee ñiy mayee ndox pour permettre au moins ñuy ñëw bu nu maree boo doon proposer benn sachet ndox ñu nga jox leen ñu naan ku bëgg tam oyoflu mun na wàcc ñëw toilette yaa ngi fii mu oyoflu mu continuer continuer yoonam ku bëgg a lekk également bu fekkente ne yekk na rek na taxaw mu lekk ba suur yéegaat ci biisoom wala kaaram mu kon ne dem d'ailleurs loolu sax mi ngi am depuis dëmb depuis dëmb dëmb boo seetlee fii non dëmb lañ commencé loolu parce que añ yi dëmb lañ ko commencé di joxe ñi dina jógee fa ne dafa xiif ñu yekkal ko mu lekk yekkal ko par groupe par groupe ñuy lekk ñi dina wàcc ne dama bëgg def li ñu orienté ko fu muy dem mu dem defi loolu comprendre nga donc depuis dëmb mën naa ne mënut lañ commencé loolu te ñu ngi ciy toujours tey jii nag bu ndox bi moom teeleen ko commencé bu ndox bi teeleen ko commencé non boo xoolee euh, ñun ñëpp ay jullit lañ boo xoolee donc xam na ni ki lii dafa métti donc métit bi ngay xam nii lu ñuy daj ci bésu gàmm donc yow tu es obligé de faire quelque chose benn geste la rek motivation bi lan la ut si barke rek parce que kii mar xamoo fu mu jógee xamoo fu mu bàyyee ko mooy au moins yëkkati nga ndox nga ne ko am nga naan ndox boobu mun naa noonu tax na ba yaram bi sedd lu ci bëri ci moom mu mu bañ a mu bañ am problème donc loolu yëpp sant yàlla la donc motivation bu énorme la te ñaan nan yàlla ñu continuer si nag ñaan nañ yàlla ñu continuer à chaque fois ñu mën lu raw nu mënoon daaw loolu la ñuy ñaan yàlla donc boobu ba léegi ñu ngi koy def ren ji également daaw defoon nañ ko ren ni ngi di ko répété te bu ñu jógee fii encore interview bi dañuy continuer mais bu ñu gis ni ki euh, circulation bi fluide na ñu soog arte arrêté mais tant que fluideul ndoxaa ngi am ñu ngi distribuer pèlerins yi ñu naan. te lu ci spécial euh, mën naa ne tey d'abord ci dalukaay bi dalukaay bi daaw amoon na lu desoon mais ren au moins coulé nañ ko donc ce qui veut dire que ren ji ñu fi ñëw d'abord il sont à l'aise ils sont à l'aise par rapport ak daaw donc boo seetloo chaque fois day am amélioration spécialité bi également ci joxe ndox bi ren dañu gën a bëri daaw sakkan ñu woon mais ren dañu gën a sakkan boo xoolee yaa ñaari entité la. Kër Tamedu action ak Tessito ñoo bokk du ko def même si daaw noonu la fa demee mais taxut daaw ñi ren ñoo gën a bëri Tessito ren dafa bëri dafa yaatu donc boo xoolee noonu la fa demee spécialité bi loolu la nit ñi à chaque fois chaque année ñuy ñëw bokk ak ñun di joxe ndox dañuy gën a bëri daaw ñu ñu ñëwoon joxe na doon bëri mais bëriwul noonu parce que am na ñoo xam ne ñuy desoon ci waañ bi bëriwuñu mais ren moom oh ça macha allah non non mënul am difficulté musul am difficulté très franchement. parce que looy def ak xol bu set mënoo si gis difficulté li ngay daj noon peut-être li ngay yaakaar difficulté la pour yow ñu loolu mbégte la parce que daf ñu war dañ nar a coono du jox nit ñi ñu lekk ñu loolu ñu ay taalibe lan boo nekkee taalibe yaa war a coono jox nit ki donc ñu ñuy def ni yëpp amul benn difficulté bu doon dafa bu naajoon bu tawoon bu defoon leneen ak leneen ñu ngi ci gisuñu si benn benn benn jafe-jafe amul benn jafe-jafe di santaat yàlla rek di santaat yàlla d'abord di sant yàlla di santaate yàlla di won nit ñi ni ki ku ci nekk dafa am ni ngay jaamoo yàlla au delà de ñun ñëpp bu ñu fexee bu ci julli di woor di def yenn lu ñu laaj yëpp mooy lépp loo xam ne c'est obligatoire am na loo xam ne tamit yow da nga nar a def mooy lan da nar a nekk da nga nar a def ba na nit boo xam ne il est solidaire solidarité boobu noonu ñun moom la ñu jàngal il faut qu'on soit solidaire maanaam nit boo ko gisee nga mun koo jàppale dee ko jàppale ni ñuy def ndimbal la te ñu ngi ñaan yàlla tamit wala di lancer également appel boobu que képp koo xam ne am na am na lu nekk ci yow jàppaleel ñoo xam ne ñu ngi dem parce que ñii di dem ni ñu si bëri dañoo sonn balaa nga koy xam nga dugg ci bus yor sachet ndox ne damay maye waxoo da ngay jaay de sachet a ngi nii ku bëgg a naan nga gis ñu yëkkati seen loxo boobu ngay soo ko comprendre ni franchement ñi fi dee ñëw wala ñu fiy romb ci axe bi dañoo soxla ndox donc ku am mun nga def la même chose wala mun nga def lu raw loolu loolu ni ñaan yàlla donc loolu moo am